édifié euh, parce que euh, ñu bari ñu la loon xaariñu wat fofu ci diwaanu ko dina xam nekk moo Grande Gueule defoon nañ fi ben entretien ya de cela 3 ou 2 mois euh, yaa ngi dogo doon deglu ginaaw ba leen ne tok leen euh deglu luñu exactement alors quelle est la suite avec Bougane Gueye après la démission justement de Cheikh Oumar Talla ak Abdoulaye Mbow yéen ñett leen bolé won mettre leen au frigo. wa mais fallu man xam nga. <laughs> Lalu moom c'est eh, c'est c'est derrière nous. ah parce que sénégalais bëgg na xam après parce que da nga xoon yo annoncer won dara annoncer won démission ah batay batay batay man duma annoncer dara. xam nga lu tax xam nga lu tax ok man dama né won la suma loxo duma ko génné ci ndab li waaye damay xaar ba ñu génné sama loxo ci ndab la. parce que nit ku ne da ngay xam lan la fa ëndé man foruma mhm. Serigne Niang foru ko ci mbedd man ken foruma ci mbedd. Mhm. fallu Fallou lu ma bu baax. Hmm. bi jàng jotee dama jàng. jaar fi war a nit war a jaar yëpp pour jàng jaar si école yu baax jàng yow sa directeur xam na ma xam naa ko. vie Thian que je salue passage. Hmm. ñoo bokk troisième bokk terminal demandoo ba université ba tey moom mu soutenir nekk docteur si lu baree bari. tu as vu. Hmm. ko ñuy for la may wax itam ak la may analyser du lu may for. te ba tey maa ngi continuer sama njàng. di gëstoog di def lu ne. yalla may ma nag ma mën a toog di wax ak kune di wax ak ñep tu as vu kon Sen TV Sen TV je vous mm. le dis Sen TV. Mm. du won lo xamanteni dama ci teg suma beut pour japp ne fi la aduna bi am parce que ba may nekk Walfadjri xalatuma won na dem Sen TV. tu as vu ba may nekk tamit xalatuma won ni na fa jógee. Mm. ba fay jógee aussi fa la jógee directement la def Sen TV duma kuñ force mbedd ah. nekkuma won ku di tok ci banc yi di waxtan ñu kay deg sama waxtan ne ma ñu def la chroniqueur est-ce ay deg hmm. donc kon dafa am mission bu ma fa don def mission bobu heure bu jexé day jex hmm. ta dama koy assumer hmm. dama ci and ak yalla sant ko si lepp lu ma fa wara joxé ta amna ño xamanteni xamnañ ni suma contribution ci grande gueule bu wul niveau ba wañi wuko sama contribution dans grande gueule bu wul niveau ba wul niveau ba nañ waxante deug rek dañ waxante deug nang nak moy li fa am kon dama japp ni xolal fallu muy seen TV ak fenen ak fu meuna doon man fepp la yemale mm. man damay liggéey seen TV ak TFM ak Walfajri lepp ci am lepp la yemale man man yalla la jël tek suma kanam dama tok suma kër ñu woma ma téléphone soxla ma te ba bañ wax nak xamnañ ni ki wax nak ah amna lu du du du ko ñi ki dé ma parlant ku pare la de ku pare la waxuma ko nag pour dara mais dañuy waxtan rek te ku kep ku mu ko si plateau tamit xam nga ni ki di wax c'est un intellectuel qui parle quel que soit nga d'accord ak man ak nga baña d'accord ak man bu jeexee jeex ñu santé ko suñ borom duma né nak nag dé de mais bu jeexee rek jeex ñu santé ko suñ borom. alors mais Serigne. entre temps euh, euh ba né ne len euh responsable yi am ñu le contacter wat pour expliquer exactement la situation wala kon instant bi da nga ni jeex la page est tourner. waaw mais li donne respect loolu mooy respect ak tir ak organisation. parce que dama jàpp ni mbir mu ne organisation daf ci am solo. Hmm. xëyuma xëyu tëb ñëw toog foofa di wax nee naa la dañ ma woo téléphone. jël si la wolf soxla ma jël si ma liggéey ak man. kon responsable bu ni mel noonu. Hein? Hmm. rupture même bu rupture de contrat amé aussi tamit japp na même procédure bi lañ wara hmm. jaarat parce que lolu moy respecté nit ak hmm. jox ko jox ko jox ko jox ko jox ko jox ko worma ak jox ko cieur tu as vu mais japp na ni nak gis nga nit dañu wara nek ay démocrate ba ila yow mi diin ba ila yow mi diin hmm. man même bu ma fa delone amul yota fallu yota du changer ca la nga xam mom la gëm que di muy principe ak ay idéologie man parce que lolu lañ ma fa indee won aussi sama principe yoyu ak idéologie yama gëm loolu lañ ma jëlee woon fenn indi ma foofu. Mm. kon loola du ma ca nekk ba à un moment donné di def leneen. dans un moment nag il faut être démocrate laisser chacun mu exprimer wu librement dafay am solo. te jàpp naa ni équilibre boobu sax dafa am solo ci débat. Mm. ñii di wax nañu gisee ñii di wax nañu gisee. Mm. loolu c'est tellement important man musuma bañal nit position musuma bañal nit fa mu féete mais nag il faut laisser les gens tamit la latitude véritablement de développer ñoom la nga xamante ni. loolu lañ gëm en réalité. Mm. pour daaneel si loolu Sen TV wak TFM ak Masamba ak Mademba ca yam xolal damay am lu ma yor suma bopp njàng ko si ay at yu bëri. tu as vu pare mën naa liggéey ku ne nag waxuma le Sénégal mais mën naa liggéey fu ne ci aduna bi. donc loolu rek pour wax la ni amul lu fees suma bët. Mm. amul lu fees bët en réalité amul. man talibé laa te dañ ma yar. taaliba Seydina Limaamu Laa al mahdiyul mm, muntazar mm. dañ ma yar si tey ak dal ak wax lu dëgg ak lu jub kon nag jàpp naa ni am na yoo xamante ni fësul sama bët te en réalité du du du lu tax may nangam ak nangam ne woon naa la nag suma loxo du ma ko génnee si ndab mais bu ñu sippee sa ndab ka sippi sama loxo ci ndab la amaana mun nañ daje ëllëg bu ëllëgee ah dina dina dina dina affir dina wax lana taxoon mu hmm. xippi sama sama mu sippi sama loxo si ndab li mais boo sippee sa loxo si ndab li jox nga ko motif bu ëllëgee mu ne mosuma dax kenn mosuma dax kenn dama doon def organisation suma planning alors loolu la moo tax man nag li may def lépp dama ci stratégique ànd si hmm. ak dal ak tey ànd si ak dal ak tey c'est quoi la décision Serigne wa mais la décision moy man ma ngi continuer suma yone fallu xam nga sank am luma la wax sank biñ toge ci coulisse yi. ok fallu damay sant suñ borom bu baax ñewuma ma fonctionnaire. hmm waxna la ko legui damay sant suñ borom bu baax. ndax hmm. defal na ma ay teranga defal na ma ay ay xeewal lu gis ak luñu mënta gis. mu may sutural ma ngi dem di ñew dama nak nak nit ko xam je suis très discret par rapport ak lamay def ak lamay wax. mais maa ngi sant suñ borom amaana am na loo xamante ni bu dee si wàllum visibilité defal na ma ko. Hmm. seen TV defal na ma ko. Hmm. ba tey maa ngi développé leneen ak feneen ak feneen. alors yàlla dama si defal sutura dama si defal xéewal tey ku ma liggéeyalul ñel bëgg ma liggéey ak ñoom bari nañ yow xam nga si dara bari nañ lool ña bëgg ma liggéey ñoom bari nañ bari nañ trop te du maa ci demarché kenn ñoo ma ci démarché. tu as vu en tout cas le ëpp ci sénégalais yi rafetlu nañ liggéey ba nga xamanteni maa ngi ko di def te te di ko yoon te lépp lu may wax nag suma taala bii laa koy waxee aw ma si demi mesure man musuma toog si plateau ba am demi mesure ci dara te du am parce que dama jàpp ni liggéey moom fa indi te buñ ñu ñëwee pour liggéey aussi sénégalais yi lañ fa nekkal kon lépp loo xamante ni dafay naqari sénégalais yi ak dafay metti sénégalais yi dañ koy assumer. Ah. mais en tout cas daal jàpp naa ni émission moom la ca ëpp solo mooy équilibre. équilibre hmm. mais boo xëyee nga balendoo ñoo xamante ni jàpp nga ni ñii ñëpp ñoo yem position te seen position yow ne nga ko gisee hmm. kon nekkatoo démocrate hmm. nekkatoo démocrate yéen am ay panel ak ay plateforme exactement euh, yaa ngi si ba tey non man nekkuma ci benn panel yu dee média non non non non yaa dem wala dañ la faa génne non man nee naa la duma dem dañ laa retiré donc man du ma du ma seppi sama loxo ci benn ndab donc dañ laa retiré si parce que dama bëgguma jox lay ëllëg ki seppi sama loxo ci ndab bëgguma ko jox lay ëllëg donc dañ laa xam naa ni tôt ou tard

ah yàlla de jeexut te jàpp naa ni tôt tard fàllu